waaye Bamba ana sama masque ak sama kaas bu yéegee nga jox ma ko di daw Thank you. ñaari affaire yi moo tax. combat baa yi noonu ngeen koy seeti di dem tribunal pour le moment nag ñu ngi toll autoroute Radisson. en direct sur Dakaractu mooy jéem si bi ah ah mooy dem fi nga xamante ni moom moo di kii di naan nga xamante ni moom ñu ko war a jàmmaarloo ak nga xamante ni moom mooy moom mooy moom angle corniche jëlal ma maire yi jëlal ma maire bi ndeysaan. ndeysaan kay magit la. jëlal ma samay wax seeni wax la. yow nag pour le moment génn ko oto bi ñëw si jàmm yàlla nga def jàmm ñëw si jàmm yàlla nga def jàmm ñëw si jàmm léegi nag da nga baaxal yàlla baaxal daaru bëmbë def benn daaru mbaxane dafa xaw bon dañu nekk booy futu actuellement nag ñëwaatee pour may oto yi nga xamante dañoo topp ci cortège bi ñu jàll comme ça moom mu mën a jàll